ñu ko waxee woon ci bopp xibaar yi Ousmane Sonko dina mën a nekk candidat ci présidentielle bi ñu jëm ndaxte fu mu toll nii kenn mënatul wax waxu contumace euh, ndax fu mu toll nii liñ ko tegee loxo nag liñ ko doon toppee yëpp ci wàllum euh, ci euh, digganteem ak Adji Sarr daanaka fu mu toll nii yëpp dara dara taxawatu ci buñ sukkandikoo ci Juan Branco di avocat wu Ousmane Sonko Macoumba Beye jokkoon ak moom euh, ci Paris bu mu nekk. évidemment dès le moment que monsieur Sonko est placé en état d'arrestation. gannaaw ba nga xamee ni jàpp nañ ko ba teye ko rek la contumax jeex contumax mooy koo xamante ne nii da nga ko war a tëj mais mënoo koo jàpp wala xamoo fan nga koy jàppee xamoo fu mu nekk nga daan ko gannaaw ci njalbeenu weeru juin ba léegi li ñu doon gëmloo Sénégalais yi ñoom waa nguur gi mooy Ousmane Sonko kenn mënu koo jàpp te booba police ma nga taxaw ca buntu këram xam ni ma nga fa nekk nag nga xamante ne nii ñoom jàpp nañ ko ba yóbbu ko tribunal kenn mënatut a wéy di wax naan mënatuñ koo jàpp wala xamuñu fu ñu nekk loolu amut sens contumace kon jeex na muy daan yi nga xamante ne ni daanoon nañ ko ko ci procès atte bi doxoon digganteem ak Adji Sarr foofu contumace amatu fa daan yëpp day màbb te itam loolu leer na nañ ndax article trois cent quarante et un code de procédure pénale moom moo ko indi jeexital bi nga xam ne dina ko am ci atteem bi doxoon digganteem ak Adji Sarr mooy ni léegi comme moom léegi jàpp nañ ko ba yóbbu tribunal rek donte ci meneen mbir lañ ko jàppee itam mu jotewul dara ak mbirum Adji Sarr ñoom buñ ko jàppee rek mooy contumace ba na lañ ko daanoon daal dinay fay day nul su ko defee nag moom day daal di amaat droit set wecc fi mu ne nii ci daan yooyu mën a nekk candidat ci élection yi ñuy fale président de la république. d'être candidat aux prochaines élections présidentielles.